ci li ngeen jëm mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV vendredi le 8 avril ci atum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal lamb fekkati fay affiche solo Blindé Senior dóor dóoraat pré contre ki nga xam ne nii moom moo di Bundaw ak ki nga xam ne nii moom moo di Papa Site journal bi xëy biral lu ni mel waaye moo di B52 Balla Gaye contre ki nga xam ne nii moom moo di Gris Bordeaux journal xam xëy xamal ñu lu ni mel Balla Gaye 2 en casse tout waaye ba tey journal sunu lamb bu xëy bind ci Balla Gaye 2 la mu xam ne moom moo di day pour battre ki nga xam ne nii moom moo di Reug Reug xam na bu baax a baax nañuy def waaye teg ca ne Gris Bordeaux day li nga xam ne nii day sama xarit la waaye ba tey moom Balla Gaye 2 am na lu bëree bëri lu mu yaatal ci xëtum sunu lamb la mu xam ne moom moo di am na promoteur boo xam ne daal ña ngay discuter ci pour mu assurer li nga xam ne nii moom moo des ci carrière am journal sunu lamb bu xëy bi la lu ni mel waaye à trois semaines de la date délimitée Modou Lo sera-t-il opération ndax ki nga xam ne ni moom moo di Modou Lo dana bëre ci lu toll noonu waaye ki nga xam ne ni ah, moom moo di défi par Sa Thiès rëg waaye Jordan ak ki a xam ne nii moom moo di doomu dangu day ah, so gros contre doomu dangu waaye ba tey journal bi xëy jàll ah, ci beneen affiche si xat xatum sunu lambu gën ko faa yaatal muy combat bu nu jëm ci diggante ki nga xam ne nii moom moo di Lagros ak ki nga xam ne nii moom moo di Amaneex journal sunu lambu xëy na def ci jàngat bu yaatoo yaatu Eumeu Sène moom moo di Balla Gaye 2 B52 moom moomu rek day moo sonal ñaar ñi diggante Balla Gaye 2 ak xam ne ni moom moo di B52 nu neex la fay jaaba jonge ci seen diggante ñoom ñaar waaye Ousmane Gandigal pour garder son invisibilité journal bi xëy béral lu ni mel waaye Ngagne Sène aussi itam naka noonu la cape waaye ba tey journal sunu lamb xëy jàll ci recours bi nga xam ne ni moom la defoon moom Ronaldinho ci combat ci digganteem ak ki nga xam ne ni mooy Ronaldinho journal bi loolu la xëy xaatim waaye ba tey journal sunu lamb jàll ci mbirum ki nga xam ne nii moom moo di Bébé Diène ne moom moo la barre le 21 avril ci ko fa séene ate ko ñëpp ñaana waaye affaire de ki nga ne nii moom moo di jagar jagar aux États-Unis góorandooy la avocat journal bi xëy xamal ñu ni mel sàcce sipli ki koy ñaan day mu des ci li ne moom moo di ngir mën a dàq li Mbengue journal bi xëy xamal ñu li ni mel rëg-rëg Sa Thiès ko amal en de mai journal sunu lamb xëy andi ci yaatale ku xamal ñu li ni mel bu xam ne nii moom moo di ceg jalgati lamb ka ñu fay fekk xam le ci Sa Thiès moom di day la mu xam le mën naa jàngal ki nga xam ne nii moom moo di rëg bëre sama doom sax moo dàq bëre ki nga xam ne nii moom moo di rëg lu samay wax waxi Sa Thiès la yéen koy seetaan lamb actualité People TV du ne kenn bu ma topp waaye ku jooy da pël ak kodale Thiès xombal bambay altundangel maak sew kabaak laa ñaar kër daama kër seer jàllandul ak pataar kër Ibra Yaasin sambe ngewel sambe kool dala ba daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu siwaat ka ak Bawal Siin Saalum Fuuta ak Jolof ñëpp actualité lamb ak TV ñu yendoog jàmm koorug jàmm